fële ya nekkal waaw yëpp la fi nekkal tabarkal la tabarkal la ku ne ci sa loxo rek nag xud yadan xud yadan xud yadan xud yadan waaw nah. nah, waaw non nag la ya, ba tax na ñëpp nu di ci gën a tënku rawatina nun ñi nun ñi gën a ëmb bi waaw ëmb bi waaw te moo di nun ni ñu dëkk Tiwaawan nu bàyyi sunu xel ci sunu bopp waaw waaw nun ñi dëkk Tiwaawan nu bàyyi sunu xel ci sunu bopp waaw ndax góor gi daan wax ni dëkk Màkka ak sori Màkka bu gën ñu ni dëkk Màkka day moo gën ndax ngay na ma Màkka di ko dem waaye boo dëkkee biir makk bu yàggee ngay yëpp makk waaw waaye itam rek nun ñi dëkki teewoon nu bàyyi sunu xel ci loolu te bàyyi sunu xel ci sunuy kilifa ndax du wàññi dara waaw sa kilifa wax nga def du wàññi dara sa kilifa bëgg nga ñaq du wàññi dara waaw barke rek lay barke rek lay indi mom yalla dogal ca ba aduna amee ba ki léegi kilifa sonn njabootam jëriñoo waaw waaw maa ko nek di dem la karu e eh, ndax gor ci daan ba ci ko wax bés sunu wayjur El Hadj Mansour yal yalla yàlla yokk leeram ni ko sëriñ bi muñ rek leen dem waaw waye lolou deug ñoom muñ rek leen dese ndax ku yilif njaboot bu la xamul foog nga mu ah ku yilif njaboot bu xamul na nga toll foog nga muñ te ñun xamuñu suñu kilifa yi nañu toll waaw ah? xamuñu nañu toll waaye tey waroon na lu mu joxañ rek nu dagg ko waaw ah, loolu defal cheikh alhaj malik lu nekk kon nag tey waroon na lu ñu joxoñ ñun ñu dagg ko waaw mooy teggin nag mooy teggin maa ngi koy yóbbante Sëriñ Abdu léegi ci turandoom ma ne ko soo demee ni ko na yokk muñ rek ndax muñe fi des waaw waaw moom am na ñoo xam ni ndax fukki junni nit dañ lay sopp benn nit safaane la rek fukk mu metti la waaw daf lay metti ndax dangay xam ni mën nga xëy rek nëbbu ko jant bi waaw waaye am nga loo rus waaw mooy tax mu metti la waaw ma ne ko muñ rek a fi des nag ma ne ko muñ rek a fi des waaw muñ rek a fi des dong nag di muñ rek nag ak di ñaan ndax la sëriñ Babacar waxoon ca Richard di ko wax ak alxaaji Habib si mii waaw ko waxtaan ak moom cër yu Thiers ni ko sëriñ bi ndax xam nga ni bu ma yëgee taalibe bu def ñàkk teggin ci kër gi danaa ko jàngal juróomi téeméeri salaatul fatiha ndax bañ rek aqu Maodo topp ko seetal loolu seetal loolu waaw waaw mu nit taalibe bu muy yëg mu def ñàkk teggin ci kër gi dina ko jàngal juróomi téeméeri salaatul fatih ngir bañ aqu Maodo topp ko waaw seetal loolu ma ni ko muñ rekk fi des ma ko dama ca jamono góor ga dama daan def semaine bu ne nit bind ma lettre anonyme waaw waaw ma ni ko waaye nag man dafa bokk ci sama mbir Eh, ki taxawul ci sama kanam du ma xuloog moom waaw itam mu kallaf moom lu mu bëgg wax moroom ma war na mën ci ngor rek mu taxaw bu dee sàggandey sax mu daggal ko ko waaw bu ko defee rek ñu xam lu ca topp waaw waaye bind nëbb bind nëbb bind nëbb ma ne ko duma tontu duma ko wax keneen waaw ndax moom ma ko moom ma ko waaw ma ni ko ba tax na loolu ndax kat ak ah, wax dëgg yàlla seen bàyyi ak seen maam yi la nit ñi yaakaar te loolu soo amee nag yéen bu ngeen muñul rek musibaam muñ rekk nag ndax bés bu ne bés bu ne ku bëggul dara tooñ leen bés bu ne ku bëgg dara rek leen dul tooñ ku bëgg dara xam fa mu jëm góor gu ñu jur ci lislaam kenn gënu ko waaye mu dégg ku mu bëgg mu nandal ko nàmpal ko mu fekki ko rek a fi nekk waaw ñooñu du ñu tooñ mukk woyu ku bëggul dara jëmul fenn bés bu ne mu tooñ ku bëggul dara jëmul fenn bés bu ne mu tooñ ku bëggul dara jëmul fenn waaw noonu rek la ma ko muñ leen nag muñ leen na ko dale ci yow mii ak sa rakk yi topp ci seen sa gannaaw ngeen muñ te su ngeen demee ci seen way jur way itam na muñ adduna mel noonu ndax ku bàyyiwul ñu mag ñi fi jaar doo bàyyi ñi leen ñi ñi leen wut ah doo bàyyi mukk ñi leen wut waaw ndax kër gi moom benn la waaw benn baata ko sanc benn baata ko ñaanal benn baata fi nekk bu nu ko ormaalee jariñu ba faw bu ñu ko lu itam eh mu ormal boppam dong nak ku man boppam boko ormalul mu ormal boppam jeex na tak waaw ma ko non rek la demi waaye ngeen muñ dis bu ne ma wax len dama len di yërëm yërëm yërëm yërëm ma ngi koy wax demb mag Maodo si ci dakaru ma ko muñ len fekk may wax ak mom baat bi de ma ko da nga fanaan ci gam mu ma ma ne ko bal naa la warula woon ñëw tey sax mu ne ah déedéet dama barkeelu ci mbooloo mi ma ne ko muñ leen waaw ma ne ko ko ku boot bukke xaj bow la waaw waaw ma ne ko ku boot bukke xaj baw la waaw ma ne ko noonu rek la da ngeen di muñ te ñi yaakaar seen maam yaakaar seeni bàyyi nag tabarkal la te lu ngeen ci mën mënu leen ci dara fu ñu leen soxla ngeen dem wuy ji leen loolu rek moo nekk ci àdduna ah nun màggat ñi nag nu toog rek bu ngeen nu soxlaa ñëw jiital ñu dukki dukki dem te dellu seeg jàmm ci kattanu yàlla loolu rek moo fi yokk kattan te def saxal ko ba faw loolu rek mooy li nga xam ni moo ci nekk rek muñ rek waaw ak sabru moom laa yaati illa bil xeer waaw waaw sabru moom laa yaati illa bil xeyri te falsafa la nag muñ yombul muñ yombul waaye boo amee lu ëpp naqar daal di mën a muñ fekkee naqar buñ la bëgg a teg am nga soxla bu ko ëpp doole doo ko yëg waaw nga soxla bu ko ëpp doole doo ko yëg waaw doo ko yëg